mangook ñu ngi jéggulu dañoo defoon ni rek euh, Chérif ma ngay waaj a si waaye gàllankoor la am tuuti euh, kon Mamadou Fall rek la ñu fas yéene àndal ci euh, yéenekaay yi seen xëy Adja Fatou Kiné yéenekaay yi kon ñu doore kook l'observateur ngeen gis ci xëtam bu njëkk mu wane li nga xam te ne mooy jàngoroy mbas mi ne nañ daal étude biñ ci amal wane lépp ci wopp gi Euh, protocole maanaam euh, ni ñu tëralee lii di paj mi euh, li nga xam ni nag moom mooy gàllankoor yu mu jur ci wàllu hospitalisation yu précoce yeeg ñi nga xam ni daal faatu nañ ci waaye yokkute cas yi ñu nemmeeku ak vaccin yi nga xamante ni daal moom la ñuy laaj mooy ndax efficace nañu assemblée nationale yëkkati nañu ni ki démb euh, waxtaan jëm ak ci jëwriñ yi ñu dénk wàllu suñu koppar mu di ñu ne daal axe prioritaire yu budget 2022 mooy at mi ñu dugg euh, ñu jàpp ni daal budget bi boo xoolee dana am ab yokkute gu tolloog ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti ci milliards loolee nag euh, ñu ne daal boo xoolee ca lañ ko natt jëmoon na ca juróom benn junni euh, milliards ci wàllu investissement euh, privé euh, ba tey ci yéenekaay bi wax na ci li nga xam te ni mooy à traité bi am juróom benn fukki ak juróom moom ak gone gi di yëpp étudiant lycéenne bu am ñaar fukki at ak ñaar projet de mariage ba ñu amoon ak juróom ñaari million yéenekaay bi ba tey wax ci combat wu premier août ba atum 2021 cité Papa Sow nee nañ daal xuppante nañu bu baax gannaaw ba ñuy doon jàkkaarloo dem le quotidien ngeen gis ko noonu ñu wax ci wàllu kon euh, gestion budget bu atum 2021 euh, ci wàllu finance waaye daal ñu duppe ko recette miracle ñu ne lañ ca namm di namafteef gi objectif bi kon boo ko dee xool daal lañ ko xayma ëpp na fukki milliar ak juróom-ñaar Diouf Sarr moom mi nga xam te ni nag candidature euh, la ñu yëkkati jëm ci mairie bu Ndakaaru ñu ne daal Diouf Sarr nga yokk ay basam ñu xool nag ci loi bi jëm ci wàllu terrorisme opposition bi moom mu ngay wër ñi nga xam ni moo di euh, ñu seen xel màcc ñu tuddee leen les sages muy conseil constitutionnel euh, ñiy gone yi ñu déclaré wul euh, mu nekk ak cas loole loolee yéenekaay bi yëkkati ko di le quotidien Walf Quotidien xam na ni bac technique bu atum 2021 bi danañ ko door ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeent ci candidat boo xoolee daal ñooy euh, jongante moo ne ci xëtam bu njëkk ki nga xam te ni mooy euh, président de la république Macky Sall euh, muy constellation d'alliés maanaam lëkkaloo ak i alliés ñu ne ba xam moom ci wàllu nombre gi dana ca yegg ñu ne boo xoolee li nga xam te ni daal mooy wàllu bien ci abondance daal lu ko tuddee des biens de nuit maanaam xëy na lëkkaloo bu ñuy def di ko lal ci guddi gi modification code pénal opposition bi dem na daal di jébbal seen clamé ki nga xam te ni mooy conseil constitutionnel ñu ne nag euh, ba tey ci yenn kaay bi opération anti insurrectionnelle ngeen baal ma ñu ne Sénégal mu ngay wër appui ca euh, Nigéria Vox Pop ay millier de milliards maanaam ay junni junni milliards ki ñu dénk suñu koppar ci nguur gi di Abdoulaye Daouda Diallo xamle ni Sénégal daal fu mu ne nii mu nga taabale ab budget ci atum 2021 ci juróomi junni milliards ca kanamu député yi dem ci assemblée nationale ñaar fukki député benn nag bu opposition bi ñoom dem nañu yóbbu seen clamé ca conseil constitutionnel ci wàllu loi wu terrorisme record football euh, ñu wane ñi nga xam te ni daal moo di Euh, Angleterre euh, ak euh, ci nataal bi ba muy éliminé daal xëy na ñu ne foot va-t-il maanaam ci wàllu Angleterre ndaxte ñoom gëjoon nañ jël li nga xam moo di euro bi wane itam France na mu nërmeeloo. stade ba tey Benzema Mbappé CR7 Lewandowski largué ñii daal la ñu éliminé ci li nga xam moo di euro bi ñu nekk seen équipe mujj kon toog ci huitième de finale. sunu làmb kon euh, yëkkati kàddu weccoo diggante Papa Sow ak Siteu ca Iba Mar Diop Papa ne dana daan Siteu ni danaa la agressé. danaa la agressé ci noonu la ñuy jeexalee euh, kon yéen kaay